banu balla nujuumun biddiw saful weer sëriñ fàllilu mooy weer wi leen di jox leer sëriñ fàllilu laajal lu la neex laaj ku cheikh bamba di baayam lu ko neex laaj asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaar di fàttali di jot li ndigal lu bàyyi ko xalif sénéral des mourides cheikh Mouhamadul Mountakha am na cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na fi yàgg te wér jaar ci sëriñ Abou Baraka Mbacke xalifa cheikh dul faadal ñëw fii ci kër sëriñ Abdou Fatah Mbacke mi nga xam ne moo yore kàddu njabootug sëriñ Falilou yàlla na ñu fi yàgg te wér. nu toog ak Baye Galas Mbacke moom sëriñ Abdou Fatah mi nga xam ne ñaar fukki at ak juróom-benn ngi nii muy fàttaliku maamam sëriñ falilu mbakke di ko ñaanal. di ko ànd ak bokk yi ak xarit yi ak wëllëre yi ak dëkkandoo yi ren jii nag di ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar mu jàpp ko le 30 novembre incha allahu taala di bisub gaawu ca Touba Ndamaatu fa mu ko daan defee. ñun waa daayira xidmatu Cheikh Mouhamadul Fadil ci njiitul Cheikh Abdoul Fatah Ndiaye di leen fàttali rek bis bi nga xam ne baaxoo nañu ko ànd ak Serigne Baye Galas Mbacke ci di ko sant le Cheikh Mouhamadul Fadal. muy nekk gaawu le 30 novembre incha allah ci corniche Serigne Modou ni ko daa àndee ak ñun ñu koy sàkkuwaat rawatina nag ahlul quran wal xasida ñoo ngi koy fàttali ñëpp ca uh, corniche Serigne Modou ba lay doon ci mbedd bi nga xam ne moo jàkkaarloog 30 bi ci penk bi le 30 novembre incha allah ñoo koy fàttali ñëpp jërë ngeen jëf. di yëkkati sunu kàddu rek ci turu daayira ahfaad Cheikh Mouhamadul Fadil ci njiitul Serigne Abdourahmane Fall ak Serigne Cheikh Mbacke Abdoul Karim ak mboolem njabootu ko Serigne gépp waaye ci turu daayira bi ñuy sant sëñ Baye Galas mi nga xam ne mooy woote bis bi ndax taxawaayam bu rafet ci biir bokk gi kon su wootee mboolem fu bokk nekk rek war ngaa ñëw bokk ko ak moom ci taxawaayam ak jàpp ak bëgg mbokkam loolu maa ngi koy wax ci turu mboolem ñëpp rek tey it ñëpp d'accord nañ ci ak man ndax ku baax la ku matale ay yiteem la kon noo ngi ciy woo ñëpp képp koo xam ne daal mbégum Serigne Fallou sa mbég la ñu ngi lay woo ci sunu bis bi tey ñaan nga wuy sunu ci. mu mel ne nag bu ngeen ñu gisee seen xel dana dem ci bis bi nga xam ne nii mooy sunu bisu bopp ñu baaxoo woote ci njiital Cheikh Mouhamadul Fadal mu Cheikh Abdoul Fatah ànd ko waa daayiratu xidmatu Cheikh Mouhamadul Fadal ñu di ko amal ren jii ci fanweeri fan ci weeru novembre di bisub fàttaliku te mu mel ne fàttaliku yonente bi sallallahu alayhi borom waxoon ne del fàttalee bu fekkee ne fàttalee dana am njariñ mu mel ne fàttaliku sëñ Fallu nafaraat ay jikkoom mbir la moo xam ne waxtu wu nekk dañ ko war a def ndax jikkoy suñu fal mooy jikkoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jikkoy Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mu mel ne sëñ Fallou nag ci wàllu googu moom géej la ci goo xam ne nii amut fu mu yam kon nag baax na ci waxtu wu nekk ñu koy fàttaliku waaye rawatina bis boo xam ne dañ ko ko jagleel di ko ci fàttaliku di fàttali jikkoom yoo yoo nga xam ne ñi nga xamoon ne xamoon nañ danañ ci fàttalikoo ñi nga xam ne xamuñu woon tamit ñu jëm caa teg seen seen tànk kon ñu ngi ciy woo suñu bokki jullit yëpp di ci woo suñ bokki talibe yi waaye di ci woo ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal sëriñ bi muy waa kër ahlu maharam yëpp ak mboolem Cheikh Seck ak afaadu Cheikh Mamadou Fadal yi doo leen wax ne bis bi seen bis la. kàddu yi nag ñu ngi koy jël ci ndigalul sëriñ Modou Mbacke mi sëñ bi sëriñ bi nee na yéen bokki talibe yi nga xamante ne nii yéen la bokkal sëriñ Saliou. te Serigne Saliou du seen buntu ci Cheikh Mamadou Fadal mu ngi leen woo ci bis bii ngeen xam ne seen mbokk moo ko taxawal ñu koy wax Cheikh Mamadou Fadal ibnu Cheikh Abdoul Fatah te kon xam na ne lépp daje ak mbokk kon bu Serigne Fallou lii di sant Serigne Fallou di ci fàttali ko Serigne Saliou mu kon loolu ñun ñi nga xamante ne nii ñooy mbokki taalibe yi nga xamante ne nii sëriñ Saliou lañu yaakaar muy suñ bunt ci sëriñ Fallou sëñ bi nee na buñ ci kenn man buñ ci kenn raw fépp fu ab taalibe mën a nekk bitim réew ak fii ñu nekk ci réew mi di senegal sëriñ bi nee na mi ngi leen ciy woo di leen ci soññi nee na mi ngi sant sëriñ Galas mi nga xamante ni moo taxawal lii. ndaxte ku ne xam na ne sëñ Saliou ba mu fi jógee ak léegi yàgg na kon buñ ko dugalee ci lii sëñ bi nee na Baye Galas mu ngi lay sant bu baax a baax ci fàttaliku gi nga xamante ne yaa ngi koy fàttaliku sa waajur muy sëñ Saliou kon nag nee na ñu ngi sa ginnaaw duñ la bàyyi benn yoon danañ ko ànd ak yow ba keroog liggéey bi mat ba lépp loo xamante ne nii luy ngërmal sëñ Fallu la ñu ànd ko amoonoo di sant yàlla tamit ci teew gi ñu fi teewoon daaw fekkwaat ko ren. sëriñ bi nee na mi ngi ci sant yàlla bu baax a baax ak ànd ànd ànd gii ñu ko ànd ci teefu nag Cheikh Mouhamadul Amin mii nga xam ne mooy kilif ak jotaay bi di moom Cheikh Abdoul Fatah ñi ngi yëkkati kàddu yëpp ci turam di ko jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Fallu nag dafa wax ne mu ngi fàttali bisam bii nga xam ne amul lu dul moom muy bisu Cheikh Mouhamadou faadal bii di ci woo mbokk jullit yëpp. ak mbokki taalib bi yëpp fu waay fu mën a nekk rek sëriñ bi nee na mi ngi la koy fàttali woote bi nag ñu ciy jiital waa kër sëriñ Touba yëpp bàyyiwuñ kenn képp koo xam ne askoo askandoo nga ci Mbàkke sëriñ bi nee na mi ngi la ciy woo ak mbokki Mbusoobe yi ak mbokk yi nga xam ne seexi sëriñ tubaa lañ te luñ luñ lu fa nekk sëriñ tubaa ko fa def nee na mi ngi leen di woo ñoom ñëpp bàyyiwul kenn di ci woo tamit ñi nga xam ne ñoo yor ngànk dëkk bi xañ na loola dañ koo baaxoo def ak fàttali waaye euh, ñu ngi ñu ngi leen ci woo bu baax a baax képp koo xam ne rek sunu borom jox na la cër ngay kilifa ci dëkk bi min sëriñ bi nee na mi ngi la ci wow di fàttali nag ne mbokk mbokki boppam yëpp tamit muy waa kër sëriñ Ahmadou Fari Fari Sey gi tamit muy famille Ndiayeen bépp sëriñ bi nee na mi ngi la ci woo bàyyiwut kenn di ñaan ci barkeb sëriñ Fallu képp ku fa teew yàlla na yàlla na sëriñ Fallu faj say aajo ñu def ko ay at yu bari lool. te tal ko lool ci barke Cheikh Mamadou Fadal sëriñ bi nag waxoon na ne yéen mbokki boppam yii sant na leen bu baax ndax kat teewaay yii at mu jot jamono ji xat na waaye nii rek ngeen koy defee kon nag mu ngi leen di seereel na daal mu ngi leen di bàyyi ak sëriñ Fallu mi nga xam ne am na fay yal na leen yal na leen fayal boppam. mbokk yi kon dégg ngeen kàddu yi bàyyi ko ci ñi nga xam ne ñoom la Baye Galas moom suñu du fa tànnoon ngir ñu leeral nu bés bi ak programme bi waajtaay wi le 30 novembre incha allahu taala ca corniche Serigne Modou Bousso ci Ndamatu programme bi nag ni ko fas yéene doxalee nañ ko daan doxalee rek xëy jàng alxuraan gonte jàng xasaayit guddi gi dina am cérémonie officielle dana am itam waxtaanu diine woo xam ne alhaaji Ndiaye Cheikh Ndindi moo koy def thème bi mu fay waxtaanee nag mooy taxawaayu Serigne Fallou ci yar Serigne fallu nag ab yaram la ci daan jiitu mooy soññe ci alxuraan ak soññe ci sopp Serigne Touba. ko mos a bind ab kaamil ba indi mu jox la dund ak soxna nga boole noonu la doon soññee gone yi ci jàngum alxuraan kon guddi gaa ngi noonu la def ci guddi gi alaaji sëriñ malik Sall moo koy àggale incha allahu taala sëriñ Baye Galas moom sëñ Abdou Fatah wax na ne mi ngi séntu ñëpp di sant ñëpp di xam ne lii muy def lim ci jublu mooy sant sëriñ Fallou rek. sant sëriñ fallu rek la ci jublu ndax moom léppam sëriñ fallu la moo tax ba mu ko tàmbalee ba léegi lépp yëngu bu ci def rek da koy sant sëriñ Fallilou waaye nag na xelam dal ndax ku sant ñu dolli la kon nag mi ngi séntu ñëpp di woo ñëpp di ñaan ku fa teew yàlla fa sa ajo